xam ni yaakaaru làmb lanu liis njaago war a jóge jàmm gën ardo war a jóge golf gaynde muy drapeau Moustapha Gueye di PDG euh, Sénégéo kon Moustapha Gueye PDG Sénégéo moom la Jax production di delloo njukkal le 22 janvier ñu fas yéene ànd ak moom arène national liis njaago ñoo lay nuyu aca liis Yaxil liis a ngi noonu am combat Athélis Yaxil ñu waxtaanee ko mais gaa ñi dañ la bëggoon gunge nga bëggalee ko supporters yi. ñu ngi fi ak Ardo bu Golf Gaydé jox onze billah bismillah ina wala yàlla di sant borom bi di julli si yonentam bu tedd di sant borom Touba moom ñu booleeg Baye Aziz ba léegi lépp lu bon dañu koy bàyyi yàlla nañ si sax ba rek ñu ñuy yóbbu Touba tuubi ruubi naa sant nañ la Fall dootuñu ko baax xanaa kay jëfe ndigal bàyyi tere bàkki suñu Fall di nuyu ñu fi teew ñëpp di nuyu sama adversaire di ko jégalu si retard bi di jégalu sama manager bu baax di jégalu assistance bi yëpp waaw bu baax Père Jax waaw xamee ma ko woon ndax ay kos laa ko xamee woon quoi. fii la génn kaana la. <laughs> ba ba leneen ñëw. ba leneen ñëw jaajëf Liss ñoo ngi lay nuyu. waaw ginnaaw bañ sant yàlla sant Yeesu Kirist ak Mariama sell mi waa ñu ngi nuyu ñëpp di nuy suñu Père Jax di nuyu Ami Collé di la baax di nuyu mbëri fii teew yëpp ak ménagère yi ak waa CNG. di nuyu booy ma àndal yëpp waaw booy si bunt bi waaw di nuyu ceer bu baax borom di day sonn si man. waaw ak sama mag gabaar di bëggee waa Tamba bu baax. waaw laafa maa ngi koy bëggee bu baax waa Guinée Bissau. yee di la wax ni nji ma ci a ko na njaxu. yee na waaw na juraani nañ jar rek bilaay. loo leen wax. waaw dama leen wax ne man maam doomu njaago laa. waaw nañ ma ñaanal bu baax a baax a baax. waaw le 22. ok ku bëggee àdduna ko waaw képp kuy bëggee Liss Ndiago rek. Ardo gis naa yaa ngi xool sa waay yaa ngi rey. waaw dama xool xam ne job na quoi. nii moo baax. yow damaa bëgg nga xam ne yow. nii moo baax nii moo baax. lu tax nii moo baax. guy guy guy matul woon këriñ la. guy matul woon këriñ la. état gelman la yoroon mais ainsi nice. ok hmm. waaw lu mu wax noonu rek di profité tamit di nuyu xam la di bëggee ñu nekk si kaso bi yëpp yëpp par exemple sama booy fa nekk samay garant mhm. ku su mel ñoom Fallou Ndiakhou Bar ñoom Zal moom doon sotti gàllaaj mhm. waaw ñoom ñoom ñoom kii ñoom ñoom ñoom Dembis xam la ñoom Demba booy yëpp waaw maa ngi leen maasa bu baax di la wax ne yaa leen fa yàlla génnees fan yi néew waaw ay laasana booy yëpp yoone combat bi tamit seen combat la bu baax a baax a baax mais saa yi ne baax état bi nga yor moom di boobu léegi muy wax waa maa ngi seetaan ay interview ba depuis boobu ba léegi ñu ngi wax si wax lañ toll waaw da may dellu ba ngay wax may dellu yaa dégg depuis boobu léegi ñu ngi wax wax lañ toll buñ tolloo si jëf dañuy jëf incha allah yow am ah, bu ma waxee nga wax maanaam fii la quoi boo xee mais si wax lañ toll maa lu tax fii la waaw ci wax lañ wax nu mu lay déllu mooy wax déllu ma. wax lañ toll wax dëgg boobu léegi maa ngi seen interview am. Mm-hmm. waaw mu ngi wax boobu léegi di xaw ma ardang xaw ma leneen ak leneen waaw maa ngi sama dugg di entraînement. bu ko wér soo la paaga ñaari boor. yàlla la yàlla may xel boo dëggalee sa bopp. <laughs> bi làmb li bu foofu sax. làmb liggéey la da ngay entraîné ceene am doole taxaw dëggal sa bopp bëree daan. mais ay affaire man la sum waaj yii nii. entraînement loo ci amuloon ba léeg léegi mënoo ko ci am xam nga dañ naan pare tàngal doo ma ci yow maanaam pare tàngal sa dafa tuuti saako sidee man ak yow xoox yëpp sama saako laa koy dugal muy ñibbi jàmm ko. kon xamoo ma rek maa réeré mbir. ma. kum lay laaj. maa fa ñëwoon ni nga bëree daan ñëpp ñibbi maa ngi ñëwaat ni nga bi paa dama koy buddi. Oh. fukki bukki guddi fukki bukki bëccëg neel borom tool bi maay bukki bu mu dàkkoon guddi par force damay teew gis ma booy bu mu fi téye boo may jaay réew prix en laa koy jëndee est-ce non comprendre dafa neex. Ah, ñun dañ làmb hm, la a def. yow booy beeg la kaana la kaana ko tëgg mu ngi nii. yow booy kuy bu taxar dul ay rab. tey day takkar naasee. di nga tal dul ay rab di wax kuy day takkar naasee. kii loxoom du kii loxoom bu jógee daa ñandu. maa la ko wax tey. waaw Athiélis loolu. lii la bëgg si làmb ji quoi bay muy wax may wax wala genre yooyu noonu. non c'est parce que. yaa ngi parce que waxkat laa ko seqal faa ma wax man. waaw boobu la yow yaa wax nga wax la ko seqal. waaw man géej moom benn yoon. si maa lay jël boobu la ngay wax. waaw laam mooñ boo la mën a yow. waaw doo ñëw tey pour rappeler suñu religion ak suñu kii contrat yaa ngi dégg. maanaam nañ nañ ko rappeler nga dem ko waa ma dem. teel sa micro. tey bu àdduna waaw nga may dellu. li ngay wax nii amul xam ba léegi aw ma dépassé ma la dañuy wax pour neexal bés bi. waaw bu indi ay fair play ak yooyu ak yooyu dépassé ma embuscade la nga xam ne dépassé. embuscade yooyu <laughs> booy fàtte naa fépp. lu muy du ko jëfee lu tax affiché indoor dawal kawoy moo ko wax. dawal kawoy du ko jëfee. lu tax du ko jëfee. day affiché indoor dawal kawoy Ardo ma la doon affaire yi ñuy naw te teewul kenn gënuñu doon waga saga barki maam Cheikh Ibrahima ak Ardo siisu man nga yow siisu ah, non tout sauf ça anam na borom xoolu jamono ah, nga waxal waaw Liss Ndiago fu mu yegg du jomo wala leneen leneen waa jaamu nga ñoo fa yegale dëgg la man jaamu nga laa dëgg merci waaw yaa ngi dégg mais waa jaamu nga bu leen ngem toujours ngay ñëw sa micro gaañu mën na nga yegg fi nga yegg d'accord mais loolu en dehors arène la waaw yow waaw baal siisu bu ko si arène amul problème a bëri ko waa kii may tëgg sama gars yi nuyu ñëpp tamit lay bàyyi nga wax sa waaw di dellu tamit di nuyu nuyuwaat ñëpp di leen wax ne nañ combat bi nañ ko waajal baax baax le 22 la waaw nag si boo teel a ñëw teel a añ añ yi waaw ñu dem esaan mu duma ko daan ko di poursuivre tamit di sant tamit père Assane bu baax père dama liiral li jaajëf waaw comment yow kon euh, lis mi ngi bàyyi xel gaañ a ma ah, tënkal ko rapidement rek waxtu wi daf ñu dab may ko may ko ma tënkal ko ñu yeewu jotaay bi ku ci mel ni Assane Seye ah waalo waalo bi Père Yoro Diop Youba Diane Talla Dieng waaw nga ne yaa ngi xaar Talla Dieng quatre blocs yi ah Pape Ly aca aca maire Moussa Fall mhm. Père Pothio ak gaañ waaw du nuyu sama leen di woo sama yaay am bu baax du nuyu mère aw la mayel Ardo moo teel rapidement jaajëf li Ardo père damay woo waa Parcelles 1 ba di woo suma yaay aliment ak jibi kayta bu baax waa diaspora bi omzo bu garga mboose xam nga di woo Jules Soultra borom la souris des gestes pour des sourires xam nga di woo suma grand omzo bu garga xam nga Cheikh Omar Mbaye suma papa Lat Diop dama bëgg nga wool ma ko yow. jaajëf Lat Diop borom Lat Diop sa jarbaat mi ngi lay xam nga jaajëf DG Lonase mhm. maa ngi koy woo baax di woo Waale di woo Cheikh Omar mhm. Jibi Kayda du ma taay si la Xaadim Dieng xam nga di woo suma yaay Yaasin Dugure ak doomam Xaadim di wax seen combat bi seen combat bi seen combat di woo ku si mel ni Bilal ak capitaine di woo waa groupe nopp sa jëkkër yëpp xam nga suma koñ ku lim juum xam nga di woo ñëpp daal golfu bu ma limee juum gars yi faali lamb ji seen làmb la. comme rafet na kon ak ñi nekk tamit si tee bi ñëpp xam nga di leen ñaanal comme sa ay nu mu ko waxee ñu génn ñu yàlla teggi leen nattu bi ñu nekk si hôpital yi tamit. ñëpp jërëjëf mooy loolu Liss Ndiago jërëjëf mbokk yi lamb ji moo nekkoon noonu ñuy bàyyi xel Jax production. Jax ñu koy jox cëram ak wàccuwaayam rendez-vous bi le 22 janvier la ñu ànd ak moom arène nationale naka noonu kon estafam yëpp ñu leen di bàyyi xel gars yi may leen ñu ñu tëj rapidement rek Idi Ndong Khalil Matu Bibi RDV